استجاب بالمخفي ربي بالمختار من خزي أسأل نيل المنى بلا سلا ولا غرور بنبي النكرا لجد بخير وفني ودر ربي بجاه متبان مرا طيب فؤادي برود صوتي لأبدا فضلك بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ bi mboole mañ ma xunóoree nii ñoo fi daje mañ ma xunóoree nag ay élèves ak étudiants yi nekk ci lycée yi ak université yi ñoo ko tënk waaye ñooñu genn bëgg lañ am mooy sëñ ndax nun ni ma la ko waxee woon daaw danoo juddu jaaruñu ci ay daara ngir jàng alxuraan xam-xamu diine bari lewun ko waaye sëñtubaa moonu moo nu gàttanoog ndimbalam ak tawféexam may ñu it melokaan yi ñu am ñu nit ñu xool sunu xool daj dajul kenn ku dut yow ndax kan mbàkke da ngay jàmbaar da jàmbaar ci bëgg sëñtubaa te loolu doy nañu ci cal ba tax na gone goo gis muy dox mag moo jàpp ci loxo bi te sëriñ bi day mag mag rek moo fu mën a yóbbu kenn ñu lay ñaan Mbàkke ci sa ndimbal ak yërmande lépp loo xam ne ñoo ngi ci nga dimbali ñu ba dugal ci ngërëmal sëñ Tubaa ndax kat dund ba faatu te yow ba sëñ Tubaa ci ñun ñàkkoon a dund mënu ko gënal ndax xam na ni fi fi nga teg sëriñ bi bu fekkoon bakkan lay laaj kenn du ko dégg sa bos ngay njëkk a joxe loolu nag moo nu jox tegtal ci yow nga dimbali nu yërëm ñu ndax li ci kanam li ci sunu kanam xamuñu ci dara waaye xam nañu ni boo ñu ci jiitoo lépp baax xam na nañu itam koo dimbali ndimbal dootul tàggook moom loolu itam ndax mbooloo mii sëñ Sall Touré moo xalaatoon ci lu kenn yëgut daan ni dama bëgg ngeen booloo ndax bés bu ngeen ko defee li ngeen bëgg Sëñ Tuubaa ci lay gën a gaaw loolu nag bi mu amee ak tey dañuñu ci di gis tawféex waaye tawféex yooyu yëpp li ko tëj mooy janoo gi ñuy janoog sa jëmm ji ndax jàpp nañu ni lépp lu ñuy wut ci Sëñ Tuubaa buñ ko amee wut ci yow bu yeboon nu faatu te ñu xam ne dootuñu am dara loolu nag amuñu kàttan gi amuñu doole ji amuñu bëgg gi amuñu yitte ji waaye xam nañu ne sa ndimbal yaasu na loolu nag moom la ñuy dagaan Mbàkke lépp luñ def bëgg laa wan ni bëgg nañ Sëñ Tuubaa rek moo moo moo ko sabab waaye amut leneen loolu nag nag ñu joggil ci loolu ak ci sa mbaax nga dimbali nu loolu képp lañ bëgg maa ngi jéggul baax kàddu gi sëñ Cheikh Abdou Latif it mënumaa ñàkk wax ci ñoom moo ko sëñ Ibra Gueye mi ak sëñ Ibra ndax ñoom dañoo raaxaloo ci suñ biir te bàyyiwun nu benn yoon ñoo ngi ñaan ci sa ndimbal kenn ku ne ci ñoom ngërëm li mu bëgg ci Sëñ Tuubaa nga fàggul ko lu kawe njottam jërëjëf jërëjëf